Bonsoir à tous et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Sport 2S. Sport 2S qui revient après vous avoir fait euh, donc vivre intensément l'afro-basket de Dakar. Alors vous avez vécu d'abord euh, le compte à rebours, ensuite euh, les coulisses de Dakar Arena. Aujourd'hui on se retrouve pour refermer, on va dire, cette page basket, afro Parce que la page basket, on ne va pas la refermer totalement. xam ngeen ne na événement beneen événement bu mag bu ñëw mooy coupe du monde de basket masculin Euh, donc euh, que nous accueillons la capitaine des Lions du basketball Assou Traoré euh, émission bi nag ñu ngi koy fii ci Fleur de lis donc ma ci profité di nuyu borom kër yi kër gi quoi voilà mooy Aimé et puis aussi Laurent mon ami Laurent voilà donc le le roi est aujourd'hui chez les esclaves voilà alors c'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons Assou Traoré pour débriefer l'Afrobasket on va aussi voir des images inédites parce que Assou Traoré a été honoré à benn Tali. La carrière de Assou Traoré est partie de benn Tali. On va en parler tout à l'heure. Et puis, elle est aussi, euh, elle a été accueillie à Thiès par le Andy Basket, le club Andy Basket de Thiès. Tout ça, on va vous le montrer ce soir dans ce nouveau numéro de Sport 2S. Sans oublier qu'on parlera également de football, parce que Hamgen, week-end, bi, na Euh, coupe d'Afrique euh, Ligue des champions euh, équipe bu Sénégal nag représentant mooy génération foot am na résultat bu baax ndaxte dafa éliminer club bu Libéria alors loolu mooy li nga xamante ne moo gën a fës ci numéro bi capitaine maa ngi lay dalal di lay nuyu aussi di lay na bon en tout cas merci encore une fois de répondre à notre invitation. merci Adama maa lay nuyu di rafetlu invitation bi aussi. Mhm. alors Assou ñu fàttali rek. y a de cela une semaine mooy dimanche bële ci la ñu joué woon finale Afrobasket yàlla def ngeen perte ko contre Nigéria. Mhm. mais comme je le disais vous êtes tombés les armes à parce que ñëpp gis nañ ne euh, si c'était pas les pertes de balles si c'était pas. les quelques occasions ratées on va en parler tout à l'heure euh, mais mhm. ba tey euh, ma défaite bi. Mhm. bon euh, nit la nit boo xamante ne aussi dama gëm yàlla. Mhm. loolu moo gën su may ñaan tout le temps damay ñaan yàlla yàlla na ma yàlla may lu gën si man. certes que métti na lool lool jouer coupe d'Afrique sa dëkk. perte ko mais dama siy sant yàlla bu bàyyi parce que. tout le temps dama naan Nigéria mënuñu ñu parce que mhm. bu ñu mënoon aussi euh, du ñu dem ba jëlee score bi mhm. euh, ça se joue euh, deux minutes yu mujjee mhm. les pertes de balle ba pare on a perdu beaucoup de rebonds en finale tu ne peux pas permettre perdre vingt six vingt six ballons perdus en finale l'équipe adversaire da lay sanctionner à côté et du coup petit détail yooyu moo tax on a perdu à la fin mais voilà voilà alors mais mais jooy yi ci fin fin marché bi lan la woon déception la woon wala public bi la woon wala lan la woon parce que jooy yi moom métti woon na ci fin marché waa mm-hmm. déception la yaakaar bu tas mm-hmm. euh, parce que pour man afro basket dama koy gagné fii à la maison euh, ba pare euh, comme ni ma ko doon waxee rek dama doon wax peuple sénégalais yi ñëpp si bokku yam mm-hmm. euh, du coup euh, bëggoon naa gagné coupe d'Afrique bi lool mm-hmm. euh, jël coupe bi te ko seen loxo comme ça ñu fete ko ensemble du coup mm-hmm. déception boobu moom a jàppoon ak gàcce loolu moo waraloon jooyu metti yi waaw parce que mobilisation bi ñu fàttali ne capacité d'accueil c'est quinze mille places mais on a vu au moins dix-sept mille personnes waay waay bëriw mun naa ne jàpp nañ ci loolu parce que boo seetee temps yëpp dañ may woon naa ma dañoo jooy. Mhm. am nga trophée ma ne leen trophée boobu. Ah, euh, c'est c'est trophée personnel. waaw cinq ah. majeur bi dama koy yóbbu sama kër man du loolu moom ma tax a jóg man je voulais euh, gagner euh, coupe bu mag bi. Mhm. teg ko si loxo Cheikh Sarr. Mhm. teg ko si loxo xale yi teg ko le peuple sénégalais bi nga xam xamante ne ñoom ñoo ñëw jàppale ñu. parce que ñun au début sax tiitoon nañu suñu bopp dañ doon wax est que Dakar Arena dina fees. boo seetee sax suñu match de préparation yi Marius Ndiaye fii dañ ko mais peuple bi yëpp ñëw génn wan seen doom et tout mm-hmm. vraiment ça fait plaisir bëggoon naa gagné trophée bi loolu teg ko seen loxo. mais et puis ñu jour final bi aussi. Euh, douzième Gaindé dem gatanu leen fële. waaw ça m'a touché. loolu loolu bi ngeen gisee gars yi ñëw supporter yi taxaw foofu. waaw man daf ma daf ma daf boo seetee. Ah. j'avais les larmes aux yeux. mais mënuma woon jooy si kanamu xale yi parce que final la woon. et tout mm. euh, na ma loolu. Mm-hmm. parce que dama dama ressentir ñuy ñëw gunge ñu gunge seen doom ne dem leen xeex yi. Mm. Euh, foofu jom ak fulla rek dañu waroon a wane. Mm. te wane nañ ko. waaw motivation la woon ma ne fii moom gagné rek lañ fi am. mais bon joxe eh, mooy joxe ndam aussi mm-hmm. euh, lii ñëw mooy dàq waa di leen masawu di di di kontaan mm-hmm. euh, di kontaanaat bu baax parce que bu fi public bi nekku nekk woon aussi lambay ñaaw parce que euh, mm-hmm. contre Mozambique aussi métti woon na lool lool lool découragé wu ñu benn yoon parce que mënoon nañoo jug dem ne lii c'est trop mais dañoo toog gunge ñu supporter ñu ñu ñu ñu gagné aussi c'est vrai que contre Mozambique moom oh, match match boobu c'est match fou waaw match mos ko dund puisque Mozambique fu ma ko jàpp dama koy dóor ah, dama koy yóbbu esco bu du jeex ma ah. mosuma xalaat sax hmm. ñu fii mais damay wax aussi merci à Sapo à Cheikh Sarr aussi le coach ah. mhm. il a bien coaché comme d'hab mhm. mais jour boobu dafa àndoo woon ndax sans froid wam mhm. en euh, mi-temps bu baax aussi la waxoon ci mi bi waaw mi-temps bi waaw moom bu affolé woon tuuti rek ñun tamit dañuy affolé mais euh, comme c'est on est on est en famille am na yoo xam te mënuñu koo génne si biti non non du tout du tout dafa ñëw ànd ak sang xam nañ ne ñun ñoo mun Mozambique euh, dañoo war a basket basket rek balaa ñuy xalaat final bi mm. euh, nañ xalaat euh, demi final bi ba pare def discours bu baax temps mooram aussi def na si ay discours yu baax mun naa ne contre Mozambique moom ak public bi moom moo tax ñu gagné certes que ñun ñooy dugg si bi bi du ñafe mm. mais il a très très bien coaché franchement mais mënoon peut-être dugg si yenn détail mais au moins may ñu tuuti rek ci mi menée par le Mozambique lan lan la wax succinctement loo xam ne peut-être. ji mun nga ko baaxee public bi quoi ñi ñi di seetaan. parce dafa def discours du coach rek comme d'hab mais euh, jour ba dafa àndal woon à sang froid wam parce que bu affalee woon xuloo ak ñun rek. day demee neneen mm. mais daf ñu war ne dañoo war a basket. moom psychologue waa xam nga dafa am basket nag macha allah dañoo war a basket. Mm. et euh, balaa ñuy xalaat final bi nañ xalaat demi final bi ba pare ñu ñafe xeex moo tax ñu gagné. Mm-hmm. bu ñu xeexu du ñu gagné loolu la coup ba ñu duggee euh, lool la ñu wane moo tax euh, public bi jàpp si yàlla jàppale ñu aussi. ñu gagné waaw ak fulla et puis gis mhm. nañ aussi fin fin match boobu avant ñuy continuer fin fin match Mozambique gis nañ ñu euh, Astou Traoré ak ak Ndeye ñu ñu jël ñu ñu la woon da ngeen daanu yaasin wala. non non du bi moo ëppoon wala c'était quoi. waaw joie bi moo ëppoon parce que. dama gis gars yi ñëw yéenu astu. waaw yéenu ndeysaan. non que en fait comme fin yi gars yi dañu songu woon. et tout waaw mais moom dafa dafa dafa xawoon na choqué et hmm, loolu la rek ba pare man dama dama dama tiitoon mais en même temps ànd woon na sama sang froid que. Hmm. ba match bi jeexee mënu ma woon imaginer ñun ñoo gagné Mozambique. Hmm, parce que métti woon na loolu. maa ngi maa ngi doon imaginer mais ñun bañ bu ñu gañe woon Mozambique lan mm-hmm. mooy xew mm-hmm. tu vois la rek moo ñu jàppoon parce que lambaay danoon ñaaw parce que Sénégal yemoon demi-finale du du du baax waay day metti trop waay keroog Astou na Dakar Arena 2017 euh, Bamako contre Nigéria encore en finale Astou jooy na donte foofu aussi yow yaa nekkoon MVP yaa ngi yoon ci cinq majeurs mm-hmm. mais dañu gis aussi Astou trop défaite boobu ak bii ban moo gën a métti bii moom a gën a metti parce que bii c'est à la maison mhm. euh, on a tout fait nag pour gagner mhm. préparé nañ ko comme ni ñu ko war a préparé joué nañu ay match amical et mais euh, bii moom a gën a metti mhm. joué euh, afro basket chez toi gagné woo ko metti na lool lool lool ba fu metti yam waay waay biim nag moom a gën a metti sincèrement bii est chance la wala chance moo manqué woon noonu la parce que perte de balle yooyu aussi xaw manque de chance la xaw ma bon je pour yow lan moo lan moo desoon le petit quelque chose qui nous a manqué xëy na manque de concentration. parce que à la fin dañoo bëggoon coûte que coûte gagné. parce que boo seetee dem nañ ba égalité dem nañ ba raw ko waa tu vois ku yobbal bi rek da ngay bëgg euh, def la différence mm. euh, bëgg a gagné coûte que loolu moo ñu jàppoon ba ñu def euh, yenn perte de balle yi mm-hmm. ak manque de concentration yenn rebond yi aussi loolu la rek waaw mm. ok dañ gis ne aussi bon il y avait une ambiance de famille au niveau de la tanière parce que le jour de la tabaski on a eu la chance d'aller vous trouver à l'hôtel vraiment gis ne boobu c'était une vie de famille euh, alors ngeen dem aussi public bi jàpp ci mouvance boobu ñu nekk ci final bi ñu perte ko finalement léegi guddi gi le jour de la finale la, la nuit et le lendemain comment vous avez passé vous personnellement ces ces moments-là Astou. <laughs> man je veux même pas ça parce que xaw ma woon xew. Ah, am na am na ñu ne Astou lekkul. <laughs> reerul ndekkiwul añul <laughs> loolu la ñu wax. waaw amoon amoon lu ma métti rek. waaw amoon lu ma métti bëgguma sax ñëw si maman for yooyu. Mhm, mhm. mais bon. sant yàlla rek loolu warul tere lekk nag sant yàlla lekk moom ma euh, faut il faut ngay lekk. waaw dama yéene woon waa Sénégal rek. Mhm, victoire bi. loolu la rek. waaw alors alors avant ñuy continuer ci ci waxtaan bi dañu dellu soir ci benn point bu am solo. parce que je rappelle que encore une fois c'était plusieurs filles qui étaient convoquées. mais après mu am ay wàññi ki ki kii choisit élimine. Mm-hmm. mais dafa am quelques filles dama leen di tudd nii rek peut-être euh, comme Mathilde comme Oumou Thiam. comme mm-hmm. Khadijatou Dieng. Mm-hmm. ak ñeneen ñu ñu wàññi yoon. Euh, en tant que capitaine yow ban message parce que y le message et le discours du coach. mais yow yan nga wax xale yooyu surtout pour remonter leen le moral parce que en ce moment là. ay xale lañu dañuy soxla. ñu waxtaan ak ñoom yow en tant que capitaine lan nga waa li ma échangé woon ak ñoom surtout euh, Maomu Thiam moom xale la xale boo nga xam ne am na sens. Euh, c'est une championne d'Afrique. elle la joué coupe du monde. Mhm. Euh, def na Rio. Mhm. am na expérience buñ ko wàññee ça veut pas dire que. carrière am fii lay yem mhm. euh, na dem defalu jiwaat liggéeyaat parce que ñoom ñoo fi des ah. mhm. ay ay xale lañu c'est parce que buñ la wàññi rek am na lu tax mhm. da xool li nga def ba ñu wàññi la euh, beneen yoon comme ça loolu mun laa mun laa bañ a dal euh, boo seetee ku si mel ni Mathilde moom la ñu mujjee wàññi yaakaar naa ne bu ñu bu ñu amul moom si moom yaakaar wàññi woon nañ ko bu njëkk bokk na si quinze yi ba pare def na tournoi bu baax moom Khadijien et tout ay xale la xale yoo xam Euh, ñu gën a liggéey am nañu jom am nañu fulla mm. euh, boo seetee Mathilde man toujours dama koy xaw a xoolee sama bopp parce que c'est fii fille boo nga xam ne mm. elle peut jouer trois mm-hmm. elle peut jouer deux mm-hmm. euh, et c'est c'est une bonne joueuse mm-hmm. aussi pareil ñoom ñoo fii des quoi waa nañ gënoo liggéeyaat ak am fulla am fayda et voilà équipe nationale kenn moomu ko ñëpp ñoo ko bokk voilà ça c'est important léegi nag après l'Afrobasket Astou Traoré dañ ko honoré Euh, li may proposer téléspectateurs mooy ñu gis les on va aller voir les premières images mooy dañu dem Thiès ndaxte foofu euh, club andi basket bu Thiès da ko accueillir dalal ko foofu euh, ñu demoon aussi xool accueil boobu avant ñu waxtaan ak astu lu tax mu dem lu tax lan mooy relation ak waa andi basket dama leen di invité kon ngeen seetaan image yi et puis ñu dellu si. fi yemoon sax mu neex fi mu neex bu fi yemoon sax fierté bu mag parce que Assou c'est notre partenaire il a toujours de notre côté euh, gis nañu ku nekk mais ku mel ne Assou euh, c'est la première fois ñu gis ko donc moo tax ñu soutenir ko jàppale ko te wane nañu ci ñun la bokk te dinañ ko gën a jàpp incha allah. ñun Assou en tant que jigéen ñi ma àndal mënuñu koo fay parce que jigéen la jàpp jàppale ñu ci côté bu nekk parce que lim ñu defal nag dafa rëy parce que tey jii ñun bu ñu demee bay toog Handisport bay toog Arena. jàkkaarloog tele yëpp ñu ñuy gis yàlla la ak astu parce que nag handicapé ci nit ñi la bokk nag te asu moom it xam na ni ñun ci nit ñi la ñu bokk mu boole ñu ci nit ñi ñu koy ñaana yàlla nit ñu boolee ci nit ñi boole ñu ci boppam yàlla na ko yàlla sunu borom yiiral boppam. dañoo kontaan ndax dañoo boole si mbir mi te yàgg naa mbir mi yàgg naa am kon moom bu ñu si boolee jël propre moyen jox ñu ko ñuy déplacé wu di dem di si supporter ji. ah kon dañ koy wax gàcce ngalaama. merci beaucoup Astou Traoré may na leen njëgu mayo ak quelques ballons basketball ballon compétition merci Astou. merci les filles. vraiment si cadeau bi laay njëkkee ça parce que euh, su ma xamoon ne da ngeen may jox cadeau du ma ñëw parce que geste bi ngeen ma defal rek dafa rafet chaque jour ngeen déplacé wu di ñëw stade waxuma la ñëw soutenir asu rek mais soutenir toutes les Lyon c'est pas facile di leen déplacé loo euh, di leen wax bis bi ni ko tey jàppoon naa leen man gën naa leen jàpp man képp ku ma xam xam ne damay yëngu si sociale bi euh, balaa ma koy njëkkee fenn si yéen laa koy njëkkee yéen andi basket bi jox naa leen cër lool. fi mu luñ leen jàppale rek doyul euh, sport bu metti lañuy def parce que euh, il faut nga am force en haut pour pousse parce que maa leen di tooñ sax ne jaratu may demati musculation sama soxlaay musculation fii laay ñëw sama xol tooy na trop. doomu Thiès la doomu Malicounda la kon ba su ñëwee fii si dëkk moom la ñëw def lu mu war a def ñu si kontaante ñi ñëpp handisport samay samay xarit la ku xam ni Niassy Yacouba Niassy kooku ku ku représenté lu rëy la si andi sport ku xam Henriette Dior Diouf ku représenté lu rëy la kon boog man ak andi sport démb woon tey soog a ñëw di si li Astou def nag moom vraiment dañ koy gërëm di ko sant ndax sànq nañ ñu gagné nañu Astou gagné na de li mu gagné am nga victoire bi soo gagné coupe bi dañ la ko jox rek après jeex na mais li ngay def si suuf loolu moo am solo. sa asu exemple at yi ma am mu joué à haut niveau représente Sénégal fu ñuy wax loolu rëy la loolu moo ñu manqué ay exemple Sénégal amatuñu léegi ay royukaay kii royukaay bu rëy la. vraiment moom jàmbaar la euh, ñafe na équipe yëpp ñafe nañu kon ñi ngi sant bu baax a baax a baax di sant coach Ndeye Marème waaw li ñuy wax rek Fatou produit site la. vraiment loolu fier nañu si ñun euh, Thiessois yëpp wax dëgg yàlla ñi ngi sant bu baax nag di gërëm ñëpp di sant ñëpp. boo xoolee ñi nekk ci ginnaaw Handi ak ñii ñëpp ñaan yiñ la ñaanal moo ñu tax a yegg si fii te ci kanam la jëm coupe moom xam nga ni yow yaa ko moomoon ren yow yaa ko moomoon mais ñu ngi lay ñaanal di la sant bu baax. man nag dama ñëw représenté ancienne basketteuse yëpp fii parce que gisuma kenn ku ne damaa bañ Astou Traoré Astou Traoré fan sii mu am au niveau partout dans le mone kenn munu ko wax pour nga xam rek foog nga dugg ci réseau sociaux yi bi ma représenté ancienne basketteuse yi ba pare représenté entraîneur jigéenu Thiès yëpp parce que xam ngeen ni période bi ñu nekk période du nganale màkk ne ñëpp suñu sanoon ñëw teew bu ma paree loolu ma représenté aussi académie bi ma jógee mooy Sud Académie parce que Astou Traoré est une euh, marraine des Sud des filles de Sud Académie équipe fille euh, Sud Académie jigéen ni c'est notre marraine on l'a invitée plusieurs fois à nos forums vraiment témoignage yu rafet la fay def elle représente dignement le Sénégal. li ñu am tey yaakaar naa ñu ngi koy soog a am muy ku yàlla dimbali macha allah. ku am tur ku Sénégal yëpp wóolu ku yàgg taxawal réewam koo xam ni gëmul lu dul gañe yàlla dogal mu ñëw Thiès daja fekk Andi am lu mu yëg ci xolam ba créé benn partenariat ku seetaan télé bi nga gis Andi Sport ni ñu doon def ci euh, afro bi kooku moom moo ko waral muy Assou Traoré kon Assou merci beaucoup alors alors Astou euh, lan mooy relation bu ñu xoolaatee léegi image lan mooy relation entre Astou ak euh, club andi basket ak indi basket. ak ah, andi basket waaw ah. ñoom samay xarit lañu mhm. euh, ba pare indi basket. Mhm. ay ay nit lañu comme ñun. Mhm. war ñu leen rejeter. dañoo bokk ci société bi et comme man xamoon naa ne seen déplacement dafa metti bu ñu naree jóg kenn ku nekk ñëw sa côté day metti du coup ma jël leen en charge waruma ko sax wax et euh, jox leen place bu baax ci suuf comme ça ñu ñëw euh, soutenir ñu Astou Traoré rek dañoo soutenir waa chaque match waa dañuy mobiliser wu ñu jugee un peu partout ñuy Thiès Diamniadio Mbour ñu ñëw euh, supporter Lions yi geste boobu mu doon geste lu ma neex loolu ma promettre leen ne dinaa gagner afro basket bi incha allah naa ko indi ba Thiès. comme ça ñu féete ko ensemble. Mm. yàlla def na gagné ko nag mm. euh, comme maa leen promettre woon ne damay dem foofu ma dem. entraîner ak ñoom ressentir mm-hmm. ñoom lu ñuy daj mm-hmm. parce que c'est des personnes comme tout le monde c'est pas que ay handicapé lañu ñun ñi ñëpp ay handicapé lañu mm-hmm. wax yow handicapé parce que tey jii su ma benoon dem benoon demoon beneen dëkk Europe laa nekk ça fait vingt nekk fa dégguma làkk bi nit mooy ñëw traduire ma kon ça veut dire euh, mooy euh, ñoom cër bu ñu leen jox rek dañ ko war a yokk parce que c'est des personnes comme tout le monde des fois sax dina am ñu ma siy ne ma da ngay di saku am diplôme am bëgg a dem liggéeyi fenn mm. ñu ne ko noonoo yow handicapé nga mm. loolu nag war naa mun a ñaax suñu réew mi euh, voilà da ngay gis ne da ngay gis ne Europe boo fa demee bus yi et mm. yéegu ko ay handicapé day am mais fii Sénégal amuñu loolu damay ñaan yàlla aussi nguur gi aussi ñu bàyyi xel trop si ñoom parce que c'est des personnes comme tout le monde mm-hmm. parce que euh, nit buy fay mm-hmm. wala ree kuy lap Mm-hmm. waa àdduna dafa gudd tànk waa ñoom dañoo bokk si ñun ay nit lañu ça peut arriver à n'importe qui mm-hmm. voilà c'est des personnes comme tout le monde mm-hmm. alors euh, xanaa peut-être ci ci avenir asu peut-être ces yi bokk na ci loo xam ne daa ngi koy xalaat ci wàllu handicap yi bien sûr bien looloo tax sax ma def geste bi ma def parce que man plus tard euh, damay ubbi sama fondation dinaa yëngu si basket bi et tout mm. euh, ku ma xam aussi ma xam ne maa ngi yëngu si social bi mais dama di ko nga xam te duma wax et mm. social bi balaa moo koy yóbbu fenn mhm. si handicapé yi laa koy njëkkee parce que c' est des mhm. personnes yoo nga xam te ne mérité nañ ko lool sax waaw mhm. ok mm. mais euh, andi basket c'est pas n'importe qui qui peut le faire de parce que gis naa <laughs> asu tante foofu ay trois points tante ay kii <laughs> mais mais mais yombul na. yii yomb dafa metti loolu laa leen wax ma ne ku nekk li nga mën. parce que damaa dem foofu ñu naan ma trois points yi ngay dugal si biir match yi lañ bëgg nga def ko mais sànni naa ba sonn mais mënumaa dugal. c'est pas mm. facile donc c'est pas facile dire nga am force. il faut nga am force voilà voilà. Ah, mm. dégg kii quoi. nee naa soxlawuma léegi dafati musculation. foofu laay dem parce que puisque il faut nga am force. pour pousser chaise roulante bi et tout. Mm-hmm, mm-hmm. Mm. en tout cas ñu ngi leen di encourager. Ah, je pense que c'est bien aussi d'avoir pense à ces gens-là. Mhm, mhm. parce qu'ils sont voilà, mhm. euh, de la société, ils font partie ça. de la société. C'est ça, c'est Même ça. si l'État fait des efforts en, direction des handicapés, mais dañu war a yokk encore voilà ñu def ci ñoom parce que vraiment am nañu solo et je pense que c'est bien de les encourager dans ce sens. donc am ñu ngi lay aussi ci ci projet yi nga am ci ci ci wàllu handi handisport. donc euh, pour encore donc on aura revenir une autre fois. léegi dañuy euh, dem euh, duñu jógee dem benn tali. parce que wax naa ko sànq donc la carrière de Astou Traoré a commencé à Bène Tally mhm. parce que elle a commencé à Bopp elle quittait Bène Tally pour dem Bopp donc foofu la nekkoon lépp foofu la commencé euh, loolu moo tax quand l'afro basket s'est terminer elle a pensé aller retourner à Niary Tally à Bène Tally plutôt Euh, voilà ñaari tali c'est avant benn tali. il faut nga jógee benn tali pour jëm ñaari tali n'est-ce pas. c'est vrai après ñetti tali wala ñetti tali. amagul ñetti tali amul. <laughs> voilà léegi dem à benn tali pour voir un peu ce qui s'est passé hier dimanche euh, à Sou Traoré qui a été accueilli chaleureusement à benn tali on voit ça.

yaroo magge fii di dëkk ba kiri koro jam ñaajo wala fii ñu leen Astou Traoré mii de Biscuiterie la yaroo woon fii la màggee moo nekk capitaine senegal loolu ndam la te loolu tamit sunu ndam la léegi ñun dañ koy bëggee di ko ziar di ko wax gàcce ngalaama Astou ñun kontaan nañ si yow kontaan nañ si yow bu baax a baax lépp li nga bëgg yàlla na la ko sunu borom defal. man nag maa ngi tudd Aliou Traoré Sista Assoula euh, di wax ne rek man maay président Assou Traoré famille bu nekk waaw ñu ngi yàgg nañ liggéey nag euh, ak moom comme benn tali xaw ma ne woon aussi euh, fii la débuté affaire am yëpp carrière am ak yooyu yëpp bi ñu ko waxee ñu ne ñun dinañ def lu tout ba ñëw parce que bi tase woon nañ fa ak gars yëpp gars yu bëri fa laa leen xamee jour final ku ci mel ni kii nii fa la leen xamee. léegi dama bëggoon nag euh, ñu jàpp ci liggéey parce que liggéey bi tey sax lay commencé waaw tey nii lay commencé waxuñu li romb yëpp romb na parce que ay pàcc pàcc la woon léegi ba mu bëgg ñu waxtaan ñun ñëpp suñu biir ñu xool nu ñuy mën a coordonné bon ñu liggéey ak euh, ñun ñëpp ñu liggéey ak Astra famille parce que ñëpp xam nañ ne si social lay doon lu tax nag ñun bëgg ko jom fu la fayda ak bëgg lu muy def moo tax lu leneen waaw loolu tax ñun ñëpp ñu bëgg ko jom fu la fayda ak bëgg lu muy def maa leen di nuyu yéen ñëpp seen teewaay euh, di wax ma damay am contentement toujours ñëw fii Bentali seet ko juddoo ma fi waaye fii laa yaroo fii laa màggee euh, fii la lépp xewee fii lañ may teralee aussi comme boog su ma amee mbég ba du ma ne mbégte la mais su ma sañoon tey damay gagné coupe bi ma indi ko parce que fii la lépp xewee euh, kontaan naa trop si accueil bi euh, di wax waa OCB yëpp maa ngi am contentement sama naqar bi tey mun naa ne bànneex la parce que boo amee naqar nga ñëw ñu accueillir la euh, damay am contentement bu baax tey kii nii. tey dama nekk fierté. mu nekk perte boo xamante ne perte sénégalais yëpp la ñu am nag yéene bu raw lii nii nii nii nii nii moom xëy na temps moom moo gàttoon te ñu lay remercier ah si am solo te Astou Traoré Astou Traoré bu ko ko moom bu tuddee ko ko c'est parce que dafa dem beneen image tamit bu ñuy jàllale tamit si Sénégal mooy mbedd mi du mbalit ñi léegi dañuy jël seen kaasu mbuus yi nii ngeen utiliser baaxul soo gisee cassette yi nii Youssou Ndour ak Omar Pène fu ñu yóbbu image Sénégal bari na kii woy jigéen ñi kii woy jaajëf donc fu ñu ko boolee mu nekk jaajëf jigéen ñi te bu ñu jaajëfalee asu asu Traoré jaajëfal nañ Lion yëpp jaajëfal nañ Lion Lion yëpp jaajëfal nañ tamit Lion yëpp loolu ne mën nañ ko jàllale tamit di di remercier ñëpp di remercier nag peuple sénégalais bi nga xamante ne déplacé wu nañ dem arena man arena dem naa ko métti na trop mais ñii jar nañ ko franchement man maay Marème Diop fii laa dëkk usine Bentali depuis 72 laa fi nekk ba léegi ginnaaw sant yàlla nax julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sant sumay waajur maa ngi gërëm ñu nekk fii ci bental yëpp di ñaanal xale bi toog suma wet di astu Traoré yàlla lafal ko cat bi mu nekkee yàlla dimbali ko ci mu gën a góorgóorlu ba mu wàll ay rakkam su may sët a ngi fi ñaari doom ñoo xam ne ñu ñoom moom rek moo leen mooy seen fans moo tax ñu dugg basket ñu ngi leen inscrire bopp ñu ngi def kii entraînement bu loolu wéyee astu de fii la màgge suñu kanam xale bu yaru ku teey toppatoo boppam toppatoo li muy liggéey mu am ci nag jom ba yàlla yóbbu ko fi mu yegg si tey commencement astu nag bi muy romb fii di dem entraînement basket dañ ko doon ree xale yi dina wax xool leen kii di dem di def defi entrenement basket lii lu muy njëriñ wante tey jii moom gis nañu njëriñ waaw moom xoolul loolu xoolul lu ñu doon wax moom dafa xam ne rek vision bi muy bëgg ci la jëm option bi mu jàpp daal jàpp na ko yàlla dimbali ko di taxaw ko ñaani waajuram gunge ko ba mu yegg fi mu yegg tey. astu dafa am yar dafa am teggin am na lu ñu xam am xam ci astu ñu bari xamuñu ko astu ba mu nekkee xale dafa nangul ay waajuram nangoo liggéey nangoo sonn ci ay waajuram tabaar kala lu mu am rek jomb ko te nit boo nekkee xale danga war a toppatoo say waajur nit loo am ci àddina waajur la koo gis mu gën moroomam rek waajur la. ba toppatoo ay waajuram boo amul woon lii ñu laaj ko ko am na yar am teggin ba mu fi nekkee léegi kenn mësu ko àtte man sama caat mi xaritam la buy joué léegi dootuma nooyi ndax dama ko bëgg dafa bëgg sama caat mooy ay go kon nag astu defe naa lii mu am rek wallaay jomb ko ndax boobu nekkee xale ñun ñëpp gis nañ ko dafa sondi si ay waajuram te lii koñ bi yëpp nañ ko mu nekk ko am yar am teggin ku maandu li mu bëgg mu bëgg ko rek boo ko doon wax si sa du la gerte moom li mu bëgg mu ngi ciy wéy rek moo tax nit loo bëgg da nga ciy jàpp boo ci jàppee lépp fekk la ca lu mu munta doon nag loo mën a bëgg ci àddina boo ko jàppee rek bàyyi woo ko rek yàlla dalay jàppale xale nag loolu lañu bëgg ñu xam ko am yar am teggin toppatoo seen liggéey loo bëgg nga boole ci yar ak teggin rek dem koy li ñu mën a wax ci moom bari na parce que bu ñu ko bëggoon wax tey yëpp ñu dem en fait parce que fi la defee enfance am bi mu nekk di dem bopp nekk xale bu ndaw ay 11 ans 12 ans c'est devant nous di dem centre bopp dem di ñëw nekk xale boo xam ne discipliné naturellement ni mu nekkee nii noolu la ko ñëpp a xamee mu nekk fa papaam ak yaayam ak ay grande sœur ak ay grand frère am bon jox ñu cër bu mat sëkk donc mu nee am lii ci ñun parce que dafa am lu ñu xam nga parce que nit ki solo yëg rek moo am solo te vraiment muy def à travers yëpp dañ amul dara lu ñu mës a raté ci li mu doon def donc mu yëg mu ñàkk ko yëg na xam ne ñu population bi ñu ngi woon ci ginnaaw tey ji bu ko neexoon mën na fi bañ jaarati ça fait plus de 15 ans ou 20 ans nekkatu fi mais n'empêche chaque fois man ci même phase bi damay dugg ci biir dama koy gis donc loolu rek moo am xamu yaayam te ci turandoom bi la xam loolu la xam ci yarama ci discipline ci bugg doom adama ci ci mbok mbokk euh, te lu mu def ci koñ bi la maintenant dañuy kontaan. ndax fii boo Malicounda benn yoon ba bàyyi loxoom ci mbokk yi surtout benn tali ak biscuiterie yi te boo Malicounda vraiment ñu ngi ko rafetalu eh, visite bi ñu ko ñaanal yàlla yàlla mu jëm kanam. voilà loolu moo nekkoon euh, li xewoon ko ñu am di Pape Samba ko ñu am di am di <laughs> caméraman 2STV bi mhm. alors euh, donc à son avis tout a commencé à Bentali sa histoire basket ak Bentali foofu la bëggoon nga dellu si. waaw Bentali euh, fa la lépp commencé. seet ko juddoo ma fa mais bañ ma ba ma feree rek laa dem Bentali parce que sama trondoo moo nekk foofu taman sama trondoo moom moo ma yar moom laay wax yaay mhm. foofu lañ ma xamee mhm. fa lañ ma yaree fa lañ ma teetee mhm. fa laa jàngee basket di jóge foofu di dem sanda bopp du coup euh, su ma demee tey ba yàlla may ma tuux ñoom ñuy ñëw stade di ma soutenir rafet na ma dem seet leen. Mhm. ñu woo ma ne dañ may sargal euh, ma rafetlu aussi sargal bi trop euh, mais benn tali moom mooy sama lépp. Mhm. waaw. Mhm. alors kon foofu nga doon jógee dem bi ngay nekk 11 ans c'est 11 ans 12 ans. waaw 11 ans 12 ans. jógee fa dem bopp. dem bopp dama daan dox waaw dama daan dox parce que soriwul ah. leen rombee ñu naan ma xool leen kii yëfu góor lay def et tout tu mais ma. ma ma jàpp fi ma jàpp rek. Hmm. xam ne basket bi laa bëgg un jour dinaa si arrivé et hmm. après ma jógee foofu aussi di dem université doon jógee Bentali. Hmm. di dem ba Dakar université club. voilà ah, di ah, dem entraînement dama dem jukk ab waaw mais loolu yëpp Bentali la xewee. Ah, voilà waay donc euh, c'était ñoom loolu touché na leen ah le fait que nga delluwaat foofu. fàttewoo leen parce que nee nañ depuis lors da fay ñëw. de temps en temps dëgg la nit du fàtte démb kuy fàtte démb rek baaxoo. Hmm. comme man fa la lépp xewee. Hmm. fa laay tiitaroo. Hmm. Euh, su ma demee tamit ba am teraanga war naa fa mun a delluwaat. nemmeeku leen. waaw parce que nit moom amoo lu dul nit yi. waaw te man benn tali ñoom ñooy sama lépp aussi. Mm. voilà alors bi mooy euh, ñaar ñaari premier quart yi jeex na mooy mi-temps. Mm-hmm. Euh, le temps que ñu xool yeneen activités yi ñu dellusiwaat ci basket bi léegi ni boucler émission bi ak yow. je rappelle que cette émission euh, donc Sport 2S on la réalise ce soir ici à l'hôtel Fleur de Lys chez nos amis voilà nos cousins sérères alors Assou on va aller voir tout de suite le football. euh, avec euh, Génération Foot qui a battu LPRC Wallers de, de, Libéria. Euh, donc les huiliers qui ont été éliminés 3-0. Je rappelle juste qu'à l'aller, c'est 1-0 que Génération Foot s'était incliné donc en déplacement au Libéria. Mais là, grâce à Mamlima, Mamlima Moulay Gueye, à Youssouf Diène et à Sheriff Bayo, donc euh, Génération Foot est passé Euh, on va tous retourner au stade Lat Dior puisque c'est là-bas que s'est déroulée la rencontre. Nous allons à Thiès où nous retrouvons Gustave Emmanuel Faye. Génération Foot a très tôt pris le match à cœur pour rattraper son retard. À l'aller, l'équipe a perdu par 1 but à 0 devant LPRC Oilers de Libéria. Avec un collectif bien huilé, l'équipe de Génération Foot trouva son salut après moult occasions ratées à la 16e minute par Mamli Mamoulaye Gueye. Bénis par ce but, les joueurs de l'entraîneur Djibi Fall voulurent réduire ce match aux premières 45 minutes. Seulement, la première période s'achève par le score d'un à 0. À la reprise, Génération Foot une pression forte sur LPRC au lieu Après plusieurs échecs devant les buts de l'adversaire, marque le second but à la 57e minute. Génération Foot réduit en ayant toutes les tentatives des Libériens et à la 82e minute libère les supporters venus très nombreux au stade La Dior de Thiès grâce savions que l'adversaire faisait pour la plupart du jeu long et deuxième ballon et que c'était des joueurs âgés, il fallait faire beaucoup de courses, les faire courir et qu'ils étaient faibles aussi sur les côtés. Avec beaucoup de, il faut plus déborder et mettre des ballons devant le but parce qu'ils étaient en difficulté sur les centres devant le but au sol. Donc on a travaillé sur ça. Je pense que La stratégie a été payante aujourd'hui. Le président de la Fédération de football invite les sponsors à soutenir le sport sénégalais. Puisqu'aujourd'hui, quand plan d'ensemble, le football sénégalais, euh, beaucoup, de, secteurs sont ouverts. Et au niveau du foot local, il faut que l'État nous accompagne, il que les entreprises nationales viennent accompagner les clubs locaux. Cette victoire est un signal fort pour le reste de la compétition africaine. Et puis la CONFEGES, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays francophones, des pays de la francophonie, donc euh, appuie et encadre les athlètes euh, pour les Jeux africains en cours au Maroc. Alors, vous le savez, comme les Jeux comme les Jeux de la francophonie, pour ce qui est aussi des Jeux africains, euh, donc la CONFEGES appuie et encadre des athlètes donc africains pour les permettre, pour les mettre dans les conditions de gagner. Voilà. Et c'est ainsi que le secrétaire général de la CONFEGES, donc s'était déplacé du côté de Casablanca, du côté du Maroc, donc pour euh, euh, donc voir les athlètes à l'œuvre. Nous sommes revenus là-dessus parce que tout simplement, euh, ce matin, le secrétaire général de la CONFEGES a évoqué à l'occasion le sujet à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la réunion euh, du comité technique de sélection et d'orientation du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes Euh, c'était SO PPG. Euh, le lancement était présidé par le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, en présence du secrétaire général de la Confégès, des représentants également de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la France. On voit ça tout de suite. Je viens avec euh, l'appui de, Maroc. Et j'ai eu à visiter euh, des, certains, certains athlètes qui sont bénéficiaires de nos programmes d'appui, notamment des jeunes qui sont ici à l'ancien CIAD, Centre international de Dakar, qui ont euh, participé. C'est vrai, ils sont dans les délégations de leur pays, mais qui ont, on a trouvé parmi eux ceux qui ont battu même des records et qui, au niveau de leur pays, constituent de vrais espoirs. Le message que nous, nous avons voulu porter, aussi bien la qualité des jeux, la manière dont le Maroc a su en neuf mois relever ce défi et préparer des jeux hautement de qualité que tout le monde a apprécié, nous avons aussi lancé ce message pour dire aux, aux athlètes africains que les gouvernements s'engagent à les accompagner. On parle d'Africains pour que les gens ne pensent pas que c'est en Europe seulement qu'ils peuvent se réaliser. nous avons ici en Afrique des entraîneurs africains qui ont encadré des médaillés. Marie-Josée Talou de la Côte d'Ivoire, elle a grandi ici à, Dakar, elle a été encadrée ici, identifiée ici au CIAD. Son entraîneur est un ancien boursier de la Conférence et elle bat le record, elle vice-championne du monde d'athlétisme. Donc nous avons des compétences en Afrique, nous avons en euh, euh, euh, Afrique et si nous, nous et que nous organisons, nous pouvons. Et le message qu'on a aussi, c'est que 2019, c'est le jeu africain. 2020, il y a le championnat euh, du monde Tokyo. Nous voulons que les Africains que les Africains euh, emportent des médailles avec des investissements et, et des encouragements. Nous avons aussi le message 2022 Sénégal, les Jeux olympiques 2022, euh, c'est pas seulement les Jeux du Sénégal, ça doit être les Jeux Que tous les pays africains se mobilisent autour du Sénégal pour que, en de médailles, en termes

Restons aux Jeux africains pour juste évoquer le tournoi de football qui a vu le Sénégal battre l'équipe du Burundi 2 à 0. Ainsi, le Sénégal se qualifie donc pour les demi-finales du tournoi de football. Retenez que pour ce qui est du tableau des demi-finales, on aura Mali-Nigeria euh, mardi donc à, à 12h et puis Burkina Faso-Sénégal mardi à 16 On reste dans la zone puisqu'on avait été à Thiès tout à l'heure avec Gustave Emmanuel Faye. On nous retourne parce qu'il va nous amener cette fois-ci à mont pour nous parler de football. La première édition de la Coupe Wilfried a opposé l'association des élèves et étudiants de mont à l'association sportive et culturelle Santa Maria. La première période fut équilibrée. Les deux formations se le score de 0 but partout. À l'entame de la seconde période, l'association sportive et culturelle Santa Maria sort le grand jeu en opérant par des contre-attaques, seulement sans résultat. À la 17e minute, l'association des étudiants et élèves de Morolan marque le seul but de la partie. Au coup de sifflet final, les élèves et étudiants de Morolan réussissent ainsi une belle performance. Voilà, euh, c'est fini la pause hein, dans ce basket, dans ce match de basket avec la capitaine euh, des Lions, Assou Traoré. On fait un peu le débriefing de l'afro-basket, euh, mais c'est l'occasion aussi pour nous de parler de beaucoup de sujets d'actualité. Je rappelle juste au passage qu'Assou Traoré, ah, voilà bon c'est vrai que mais na parce que xam nga c'est vrai que ñun en Afrique souvent gars yi dañuy wax mais malheureusement pour vous les sportifs mm dañuy wax léegi Messi ñaata at la am. Mhm. Assou ñaata at la am. Mhm. Gorgis yi ñaata at la am. Mhm. malheureusement pour parce que dinañ ci ñëwaat léegi parce que am na ñoo yow da nga ñi naan mooy Assou Assou Traoré warul arrêté dinañ ci waxaat léegi. parce que xam naa question boobu moom ñëpp moom la xaar. est-ce que day arrêté est-ce que du arrêté mais ci kanam dinañ ci man mais. Euh, pourquoi Assou est toujours performante. Euh, en fait damay ñëw si âge bi nga wax léegi pour man euh, l'âge nit ki. Mhm. Euh, boo seetee la la meneuse de Espagne. la capitaine elle a 40 ans. oui pourtant encore. voilà voilà coupe du monde mooy euh, mooy bi. moom ak ñeneen ak ñeneen pour man. âge bi voilà at voilà pour man âge âge ne compte pas fii wax. Euh, physique la koy may mm. xel baa ngi fii. Mm. pourquoi pas mm. waaw parce les huit cent points aussi dama si dama si mhm. sant yàlla plus de huit cent points waa sant yàlla la rek mm. mun naa ne lii yëpp boo amee aussi c'est grâce à sama rakk yi parce que sport collectif dañu wax mhm. et comme ñoom xam nañ ne su moom day dugal il faut ñu koy jox bali muy mhm, dugal mhm, mun naa ne aussi maa leen di félicité si côté boobu ñoom ñëpp euh, cinq meilleurs euh, meilleurs yi aussi bu ma ci nekk aussi ah, dama leen di cinq majeurs yi ah. l'afro basket waa dama leen si remercier parce que joué nañ si euh, benn part bu mag a mag parce que tout seule je vais pas y arriver parce que sport basket collectif dañu wax waaw maa leen di remercier di leen félicité aussi ñoom ñëpp dañu xool ne performance mooy euh, maintenir le rythme puisque 2017 yaa ngi woon si 5 majeurs. maa ngi koy rappelé nekk aussi MVP yaa ngi encore si 5 majeurs donc dugal parce que match lu mu métti métti. Mhm. marquage bu ñu def ci asu. Mhm. noo fexe il faut mu am plus de 10 points voilà. loolu aussi peut-être xel xel bi quoi xam nga. expérience bi parce l'expérience. aussi compte dans expérience bi waaw de si jouer en même temps aussi. Euh, li ma nekk capitaine de si jouer euh, li ma nekk mag aussi de si jouer mhm. parce que à chaque fois bu ñuy wax sama âge man loolu damay gën motiver mhm. parce que boo ñëwee ñu ne kii mag la nga ñëw mhm. euh, defoo fi dara dañ naan ah voilà lii moo tax mënu fee def dara du coup man yooyu daf may motiver euh, en plus dama di nit ko nga xam te ne je fu fépp fu may nekk rek damay bëgg a joxe un bon exemple waaw parce que à chaque fois dañ mën naa ma boo basketee xale yi basket boo bàyyee xale yi bàyyi a joxe un bon exemple waaw di xeex du et puis dama gis ne euh, ci afro basket bi surtout ak bii passé ah ak même bu 2015 bi. Mhm. ñi ñu waxoon ne euh, mag nañu. ñun sax am na ñoo dañuy màggit nañu sax. <laughs> mais boo xoolee ñoom seen performance moo tax Sénégal di gagné mooy Assou mooy Jojo mooy Mamari mooy mooy Koumba Sarr mooy mhm. ci mhm. afro basket bi. Bintu Diémé ak Bintu. voilà Bintu. regarde la <laughs> meneuse avec la donc boo xoolee. ñu ñu wax ne dañu mag mais ñoom ñooy kii ñoom ñooy génne équipe bi si ci ay situations yu difficile donc ça confirme li nga doon wax léegi nii bien sûr bien sûr c'est pas c'est l'envie c'est la forme c'est la détermination la détermination mhm, mhm. euh, déggoo ñu naan la mag dafa jar a bàyyi si réew basket mhm. c'est pareil parce que euh, boo seetee contour euh, Mozambique ñi ñuy wax ay mag la ñu ñoom ko di si bi terrain bi. Mhm. boo seetee euh, final bi aussi. Mhm. Euh, c'est pareil. Mhm. du coup je pense pas que euh, dañ leen war a féliciter. équipe bi sax mag amu ci. équipe bi tey jii boo nee nañ dàq ñëpp. xanaa ñëpp ngay dàq ñaari nit dañoo fay xale. muy Fadiagne Babou ak Léna. ñoom ñoo fay xale parce que ñoom ñaar ñoo fa am 22 ans. le reste yëpp waaw. ay mag lañu. Mhm. waaw je pense que loolu du du du wax ji il faut pas que ñu pousser nit yi ñuy bàyyi dañ leen war a encourager parce que bàyyi nañu ñuy bàyyi nañu seen jëkkër ñuy bàyyi seen doom. Mhm. Euh, ñuy ñëw sol maillot équipe nationale. Mhm. jouer sa dëkk après pression bu ci nekk nu mu méttee. je pense que dañ leen war a féliciter plutôt que ñu leen di pousser pour ñu bàyyi parce que même bu ñu waree bàyyi sax ñëpp bu ñu bàyyandoo du dem. Euh, il faut que ñu mélanger leen tuuti. Mhm. Euh, mag yi mun a gunge seen raq yi euh, xale yi ñëw aussi dégg seen mag yi déglu ay conseils et comme ça ñu mën a dem. waaw dañu gis ne aussi man bokk naa ci ñoo xam ne peut-être j'avais peur maa ngi noonu est-ce que Astou dina bokk ci afro basket bi. Astou ak Yacine nag surtout si blessure ngeen jóge woon. Mhm. yow da nga amoon blessure avant afro basket man je pensais que Astou ça va être difficile mais on n'a pas senti c'était quoi cette blessure là avant avant l'afro basket. Mm-hmm. bëgguma di expliquer tout temps sama blessure si tere yi puisque euh, euh, comme damaa bëgg a xaalis tey jii su ma amoon contrat léegi damay daw dem <laughs> takkale dem jouer ji. voilà am na yoo xam te mënuma ko mm-hmm. expliquer tout mm-hmm. parce que voilà si média la ñu nekk day dem partout. dans le monde mais. Euh, xam naa ne li ma joué saison bi bariwul parce que depuis mondial. dama gaañu woon boo seetee looloo taxoon sax bëgguma woon ñëw si afro basket dernière minute laa ñëw ba ma ba euh, leen du question dama bañ ñëw parce que man Cheikh Sarr bu ma soxlaawee euh, damay bàyyi sama lépp ñëw mhm. euh, mais dafa fekk dama blessé mhm. dama gaañu joué ma saison bi lu bari te su ma ñëwee waa si genou te mhm. su ma ñëwee blessé su ma defoon match des gens ils vont pas comprendre que dama gaañu lan la waxal kii magal na mënatul te vraiment def naa fi loo nga xamante ne su may bàyyi moo àndax ay wax wax yooyu. Mm-hmm. Mm-hmm. lii rek moo tax bëggumaa ñëw équipe nationale ñu ne ma non mënuñoo imaginer jouer afro basket sans su il faut nga ñëw jàppale ñu. du coup looloo tax nag ma ñëw jàppale leen mais dama daan jouer ba pare sax ñibbi mm-hmm. euh, la lendemain dox sax duma ko mën sama tànk bi day neew yi. ma bàyyi loolu yëpp ñëw jouer. Euh, ku si mel ni Yacine aussi c'est à féliciter. parce que moom it si blessure la jógee si opération la jógee. Euh, ñëw jox ñu un coup je pense que dama leen wax gàcce gaalaama xale yëpp tout cas ñun sentiruñu ah ñun daal afro basket bi gis nañ astu boo xam ne xamuñu sax ci blessure la blessure la jógee may yow yow li may joué nii xam nga ne man du ma joué nii man je suis quelqu'un moo xam damay daw contre attaque. damay jël beaucoup de contact et tout. mais euh, sama tànk bi moo doon métti. Mhm. loolu moo tax mais bon sant yàlla aussi. léegi mu ngi tane bu baax waaw maa ngi sant bu baax. ñu mun a ñaan <laughs> ñaanal leen ko tànk bi wër complètement <laughs> complètement parce que on a encore besoin d'elle on, on va en reparler tout à l'heure mhm. alors ñu fàttali nag aussi Astou sa carrière gis nañ ko léegi si si reportage ñaari benn tali nga nekkoon. Mhm. commencé bopp après bi nga joué bopp. joué mhm. DUC. Mhm. Dakar Université Club. Euh, toj nga foofu tamit DUC. Mhm. après dem nga ay France Espagne Belgique Turquie. Équateur. alors ban championnat moo moo la gën a marqué ban passage moo la gën a marqué ci sa carrière après le Sénégal. après le Sénégal en fait ñaar la. Mm. Euh, ba moy jouer France en 2013. ñu ñu nommé ma meilleure euh, marqueuse. Mm-hmm. Euh, puisque ba ma doon doog a ñëw en France si mm-hmm. niveau yu ndaw yi laa doon jouer. et après mm-hmm. dama galéré na pour jouer en pro. parce que su ma daan jouer moy jouer comme comme américaine. du coup France ñoom dañuy préférer les américaines que des africaines. Euh, ça m'a poussé ma dem Espagne dem jouer fa en pro wane sama bopp après dellu si France jouer en pro mhm. wane ne ñi ngeen ni ñi ngeen ni américaine yi ngeen ni jël daa ñu ma basket ma mhm. prouvé mhm. ba ma nekk fa meilleure marqueuse championnat boobu après par la suite si la delluwaat Espagne parce que dama ñëwoon de prouver pour demaat mhm. euh, doonoon na lu ma marqué trop parce que loolu laa bëggoon wan na leen ne américaine yi ngeen di jël dàquñu ma basket mhm. à part ça aussi ba ma nekkee Galatasaray mhm. parce que euh, sama carrière yëpp dama doon rêvé aussi jouer Euroleague euh, ba ma waa Galatasaray ba ma demee waa Turquie waa joué naa fa Euroleague dem naa ba ba demi-finale et tout et bokk naa aussi si les cinq meilleures joueuses et ça m'a vraiment fait plaisir ok waaw alors euh, ak équipe nationale 2015 euh, nga nekkoon championne d'Afrique. 2000 mhm. 2009 euh, di championne. non 2009 2009 en fait ñëwuma woon. dama ñëw def naa préparation bi ak équipe bi et tout. et euh, par la suite dama nekkoon si équipe boo xam te en Espagne doon doon yéeg doogu yéeg en pro. Euh, ñu ragaloon ma libéré. Mm-hmm. et du coup loolu moo tax ñëwuma woon. ba pare fédération xam nga rek tout le temps dañee mama dañoo xawoon a yéex a yónnee lettre bi mais bëggoon naa ñëw lool sax. Mm-hmm. waaw waaw mm-hmm. donc une fois euh, championne d' Afrique 2015. waay et puis vice championne d' lu bëri ah 2005. 2017 de bronze 2013. waay man bi ma mari di dugal 3 points. 3 points bi heureusement waay. 3 <laughs> moo ñu sauvé Mozambique. moo ñu sauvé macha allah. <laughs> donc euh, équipe nationale macha allah am nga ay mhm. médailles yu bëri. nekk deux fois équipe euh, euh, cinq majeur. Mhm. nekk MVP en 2017. Mhm. alors ci expédition yooyu yëpp ci équipe nationale aussi ban moo la gën a marqué boo xam ne am nga ci ay souvenir yu yoo xam ne du deñ ba ba may nekk euh, championne d'Afrique en 2015. ok marqué na ma trop. Mhm. parce que fu ñu jugee woon moo sori. Mhm. def nañu championnat bu metti mhm. parce que euh, au début je ma rappelle on a perdu deux matchs de de poule. ñëpp ñu naan. ñii ah, duñu wax ji commencé xam nga xam nga Sénégal moom ah. waa si lañ commencé naan mm-hmm. ñii ay mag lañu ay mag lañu mm-hmm. fa yàlla def ñu daal di gagné heureusement sax su ma gagné woon loolu xam naa ne mm-hmm. heure bi du ma nekk champion d'Afrique boobu marqué na ma lool doon na aussi loo nga xam te du ma ko fàtte waaw ah, boobu am na solo trop 2015 bi c'était voilà dem gagné face au Cameroun Cameroun qui avait organisé ba moo tax gi nga Cameroun moo organisé woon mais gañëwu ko gañëwu ko boo seetee en 2017 aussi Mali moo organisé woon gañëwu ko yéegu dellu sax troisième place kon ñun tey buñ demee ba final certes que mm-hmm. euh, buggewuñu wuñ ko woon nii mm-hmm. mais bon yàlla mooy joxe ndam aussi des mm-hmm. fois il faut comprendre ça ñun bu doon suñu sago la dañuy gagné afro basket bi waaw ah. léegi nag afro basket bi jeex na ñii seetaan ñu doon xaar yëpp naan asu est-ce que du bàyyi <laughs> mooy sama question asu day bàyyi wala asu mu ngi fii encore. Adama ah, question bii de ñëpp di xaar foo jaa posé ma ko. Ah. waaw loolu dinaa si ñëw puisque uh-huh. dama am ay kilifa. Uh-huh. Uh, waruñu déggee nii rek si média yi ne bàyyi naa. Uh-huh. Uh, chaque chose à son temps. Euh, su ma si waree communiquer rek incha allah dinaa si communiquer. Mm-hmm. ñëpp nañ xam ne ndax asu day bàyyi wala du bàyyi dinaa si communiquer bientôt rek incha allah. au passage ñu ngi say ñu ngi saluer aussi sa famille bi ñoom Ibrahima ñoom a surtout. <laughs> vraiment ñoom euh, say say c'est ta famille donc ils sont eh, tudd de man maa tax ñuy siiw. si man ah, dañuy jëlee buzz. <laughs> yaa ngi toog bu baax la voilà Maymouna dafa baax donc koy nuyu au passage moom ak Ibrahima. donc euh, c'est bien de <laughs> de de rester derrière surtout dans, dans le domaine du sport c'est mhm. extrêmement important mhm. alors euh, mais xam nga lu dama posé la question puisque am na yoo xam ne dans trois mois am na mhm. ay ay ay compétition mooy tournoi pré olympique buy ñëw euh, Sénégal war a jongante ak Mali ak Angola je crois donc euh, léegi nag foofu aussi xam naa Sénégal day soxla asude ak ak ñoom Jojo ak ñoom Mamari ak ñoom Bintu <laughs> Cheikh Sarr dina leen soxla est-ce que mun nañ leen séntu on verra on

en tout cas balaa boobu man dinaa dinaa dinaa parce que du ma du ma bàyyi ba dernier moment di continuer mhm. parce que bëgguma aussi yàq liggéeyu Cheikh Sarr comme euh, muy compter si ñun ngay mhm. dem ba dernier moment waxoo leneen mhm. en tout cas daal balaa boobu dinaa communiquer waaw incha euh, ba mu sës parce que comme wax na ne il faut mu waxtaan ak kii xam na ñëpp nañu bëgg mu wax léegi léegi wooy damay bàyyi wala non damay continuer mais aussi faut comprendre que voilà il y a

Euh, euh, ma ma Bintou Thiam. waaw Oumou Thiam Oumou Thiam. na ma elle fait partie de celles qui vont. continuer continuer à tenir le flambeau. Mhm. Euh, ñoom Mathilde. Mhm. ñoom Hadijatou Dieng ñoom Fatou Babou. Mhm. ñoom Yacine Diop. ñoom c'est sûr que ñoom ñoo jël relève mais il faut que. seen génération ñu am ñu leen di gunge ndànk accompagner leen ndànk nag progressivement aussi mhm. loolu il faut ñu def quoi waaw parce que mënuñu ñëw rek mënuñu ñëw rek brusquement ah. euh, dindi ñu am expérience yëpp mhm. parce que équipe aussi baax na ku am expérience di leen gunge di leen won yoon bi mhm. euh, certes que war nañoo changer mais pas tout le monde. Mhm. am na ñu mun a demaat ba tey pour man sax ñëpp mun nañ demaat ba tey. Mhm. parce que boo seetee match yi difficile yi euh, euh, damay jël rek benn exemple boo seetee ñu nax Mozambique. Mhm. Euh, ba mu metti ba metti mais Koumba Sarr moo ne coach bi jël dugal ma. moo jël numéro 11 bi. pourtant si mag yi la bokk. waaw loolu moo tax ñu ne mag yi baax nañ si équipe bi parce que boo dindee ñoom ñëpp brusquement bàyyi xale bi rek na fu muy toll expérience la laaj ci dëgg dëgg dëgg il faut ñu di am loolu. Mhm. Ah, waaw. alors mu ngi ñëw as mooy coupe du monde basket. Mhm. ci góor ñi. waaw nekk nag ci poule bu métti ah. ça me mhm. rappelle un peu 2018. bi ñu tir defee tirage bi. ngeen bokk ak ñoom Canada et plutôt ak États-Unis. Ah, gars yi naan eh États-Unis la Dream Team. donte ci match boobu yëngal ngeen bu baax. waa États-Unis ba waa finalement coach bi. Eh, def ay temps mort parce que vraiment vous vous les avez tenus la dragée haute. Euh, alors ñu nekk ci jongante boo xam ñuy waajal jongante yoo xam ne ñun ak Canada Australie Lituanie ñoo bokk mm-hmm. poule mm-hmm. euh, loo xalaat ci ci ci ci coupe du monde boobu bii di ñëw waa e eh, poule bi métti na trop. Mhm. Eh, waaye poule yi lu ñu baax baax man j'ai confiance ñun lu ñu yore. Mhm. Euh, man toujours damay wax ne ñun ñoo fi gën équipe. Mhm. Eh, am na confiance trop si garçon yi. certes que seen préparation gàtt na. Euh, il y avait l'afro basket des filles aussi. Euh, programme yi dañoo xaw a jaxasoo. mais bon ñun ñu ngi seen ginnaaw di leen ñaanal aussi. ñu am fa ndam. voilà gis naa aussi ci tournoi bi sax gagné nañu Porto Rico. nañ ko voilà gagné nañ ah. ko. am nañu ay défaites mais am nañu ñaari victoire Venezuela ak Porto Rico. c'est ça yooyu match de préparation ah. la man ah. toujours match de préparation man dama naan boo amee défaite sax moo gën parce que da lay permettre nga xoolaat sa équipe parce que mun nga dem di gagné di gagné mm-hmm. yaakaar ne yaa fa nekk nga dem ci match yi gën a amee importance mm-hmm. nga perte et du coup dama leen di ñaanal rek ñu am fa ay ndam yu bari euh, représenté foofu Sénégal ñu ngi seen ginnaaw en tout cas. joueur bu ñu mel ni góor gi nag Euh, góor gi tey bu sañoon mu dem. Ah. mais demul waaye xol bi ak xel bi yëpp ngi foofu. Mhm. Euh, damay amaale occasion. Mhm. Euh, di ko remercier de ma part. Mhm. personnellement. parce que contre Mozambique metti na lool. am na loo xam te lépp mënuñu ko wax parce que si média la ñu nekk. jàppale nañu si biir ak si biti. boo gisee ah, dugg na dugg na ba si vestiaire yi. voilà woo ma wax ma ay kàddu dénk ma ay kàddu ba ma appliqué. <laughs> nee naa la am na yoo xam te mënuñoo wax lépp en tout cas waa jàpp nañu si biir ak si biti ma ne ma euh, pour Sénégal gagner euh, si yow lay dépendre te boo seetee euh, contre Mozambique en mi-temps à zéro point Mm-hmm. waaw mu waaw mu dénk ma voilà mu dénk ma ay kàddu mm-hmm. euh, yokkal ma doole mm-hmm. wax ma euh, ne ma boo xeexee boo basketee rek xale yi basket pour euh, Sénégal gagner si say loxo la des foog nga basket voilà si laa dugg nag fippu commencé di provoquer ay fo waaw beneen asu la ñuy gis parce que parce que mun naa ne discours am bi ça m'a touché et je m'attendais pas ñaata point nga dugal sa compte Mozambique Surtout Mazambini, je me rappelle même pas. Voilà, j'arrive. Ah, à la mi-temps, elle était à 0 J'étais à 0 point. Ah. Ouais, du coup, euh, Gogi. Gogi Monfadjar. Ouais, Gogi Monfadjar. Ouais, faut que Gogi Dama ah. koy remercier personnellement. Et euh, comme ni ma la ko waxee si télé lañu nekk mënuñoo wax lépp. Mhm. Euh, jàppale nañu si biir ak si biti. Mhm. Euh, veille bi aussi def na déplacement ñëw suñu hôtel. Mhm. dénkuñu ay kàddu. wax xale yi motiver leen euh, wax na fa wax bu am solo parce que moom tey bu sañoon dañuy gagné afro basket bi mm-hmm, mm-hmm. Euh, parce que moom mosu gagné afro basket euh, def na discours bu baax xale yëpp motiver wu en même temps aussi Euh, motiver xale yi parce que dara neexul euh, ngay joué final nga ñëw ne xale yi bu ngeen gagné ma may leen cinq millions xale yëpp kontaan motiver wu oh. Oh, waaw loolu sama acte la boo xam te ne sama vraiment touché waaw loolu la promettroon waa bu ñu gagné mu may ñu ku nekk cinq millions je pense que tey bu doon xaalis a taxoon ñu doon gagné kon dinañ gagné mais bon euh, yàlla finalement nii après ah? la défaite lan la maye final <laughs> eh, bàyyi jàmbur <laughs> ah, <laughs> non non moom xoolal moom lu mu ñu defaral moo ëpp cinq si télé laa nekk nag mënuma wax lépp mais dama koy non ma may ku nekk 5 millions. waaw daf ñu promettre bu ñu gagné woo may ñu ku nekk 5 millions médaille de bronze bi euh, médaille d'argent bi. mais bu bu ñu jaxasee góor gi xoolal baal nañ ko xaalis bi parce que Macky Sall maye na ku nekk non non xoolal Adama man man Astou Traoré baal nañ mhm. waaw ñun ñun coupe bi moo ñu gën a xaalis bi. waaw mais vraiment. sapo mhm. góor gi ñu doon ñaana bari nañu mënuma mhm. lim ñëpp. maa ngi remercier ñëpp mais góor gi moom lii. mënuma ko woon waaw mënuma ko woon ñàkk bañ a franchement. waaw waaw bien sûr voilà voilà. Sénégal et vraiment. c'est ça c'est ça waay loolu la waay. voilà mm. Astou merci émission bi jeex na. waaw sa kaddu bu mujj. sama kaddu bu mujj mooy Euh, déjà damay balaa may remercier public bi damay remercier euh, Lyon yëpp. Mhm. parce que ku si nekk bàyyi nga lépp li nga doon def. Mhm. ñëw jàpp si ku si nekk sa euh, sa objectif moo doon gagné afro basket bi yàlla def na na gagné ko yàlla mooy maye ndam. Mhm. di leen ñaan ñu bañ a déglu waxu kenn ku si nekk na nga dem defaruwaat. nekk si li nga nekk parce que ñun amuñu lu dul Sénégal. man tey asuturaawale tey lu ma am Sénégal moo ma ko may. waaw parce que su ma demee di am sax ay contrat bu mag. Mhm. Sénégal moo ko waral parce que su ma ñëwoon équipe nationale bu ñu convoqué ma fi ma joué du ma am contrat bu mag mhm. te fu ñu waxee du ñu wax histoire dañ naan la sénégalaise mhm. kon man aw ma lu du remercier euh, Sénégal gi bépp euh, féliciter encore xale yi di leen wax merci encore euh, si xeex bu ñu xeex wane fulla ak fayda ak jom ba pare di remercier Cheikh Sarr le coach ak staff bi yëpp directeur technique bi président bi gis nañ liggéey bu baax bu ñu def yëpp mhm. vraiment euh, je di chapeau à Cheikh Sarr ko nga xam te ne mënuma wax lu bari si moom mhm, mhm. mais sama yéene mooy moo nekkoon ma gagné Afrobasket bi teg ko si loxoom mais bon euh, nañ ko ñaanal yàlla jàmb rek euh, je pense que dina mus a gagné dina dina ko mus a gagné incha allah bu si yàlla àndee waa di remercier aussi le président Babacar Ndiaye il a tout fait lu ñu nekk fii regroupement yëpp mosuñoo am problème ministre des sports nekku fi woon mhm. euh, dafa feebaroon ñu ngi koy ñaan yàlla aussi wër waaw parce que chaque jour moom tamit daf ma doon woo ne ma ñi ngi seen ginnaaw et mhm, tout mhm. Euh, maa ngi koy si loolu nekku fi woon mais euh, amuñu fi benn problème ndax maître Babacar Ndiaye suñu problème yëpp moom moo ko doon réglé vraiment moom tamit yéene woon naa ko coupe bi trop mais bon yàlla li la dogal waaw mais maa ngi koy yàlla aussi parce que frais yi bari na basket góor ñi yeneen problème mi ngi ñëwaat et vraiment basket local bi waa kenn mësuñoo dégg si benn problème mhm. vraiment vraiment je di chapeau à tout le monde e fi may mujjee nag mooy peuple sénégalais bi mhm. lay remercier di leen massawu coono aussi euh, su ma sañoon nag afro basket bi ma gagné ko teg ko seen loxo. Mhm. mais bon yàlla lii la dogal maa ngi leen di remercier encore bu baax a baax vraiment kontaan naa si ñëpp. Mhm. Euh, di di di remercier aussi ñu doon ñaanal de loin de près mhm. parce que euh, vraiment ñëpp ñu yéene woon afro basket bi. ñëpp ñëpp waaw maa ngi remercier ñëpp. di remercier aussi Maguette Sène. maire Malicounda. parce que c'est quelqu'un boo xam te ne sonn na si trop da doon joxe bu chaque jour waa Malicounda pour ñu def. déplacé wu ñëw di ma seetaan si mm. euh, maa ngi koy xamee si si acte boobu mu def vraiment kontaan mm. euh, mention spéciale aussi fans club Astou Traoré bi nekk parcelle waaw euh, parce que dañ doon ñëw chaque jour stade ñëpp waa Malicounda waa Bentali ñëpp adduna mm. bi yëpp daal ñëw si soutenir vraiment merci beaucoup waa Thiès voilà Andis basket bi waa jeudi gàcce ngalaama Sénégal vraiment merci beaucoup à tout le monde merci beaucoup projet baa ngi fi de waaw waaw terrain ba bëri na bëri na en ah. fait ah. waaw dama war def foofu benn terrain basket parce que boo seetee Malicounda amu terrain basket xale yi dañuy voilà voilà dootu Assou ba pare xale yi dañuy jóge foofu di dem buur te des fois xam nga moyen ni du leen ko may mhm. mais incha allah maa ngi si projet yi dina baax waaw Merci aussi Merci. à vous, Assou On vous remercie pour la disponibilité. Et je rappelle au passage que euh, les supporters se sont mobilisés. Voilà. Ça, c'était vraiment bien que les pour aller supporter à Dakar Arena. Beaucoup avaient des appréhensions. Vous entendu la capitaine elles-mêmes, elles avaient des appréhensions. Dakar Arena, c'est loin. Moi, j'avais des appréhensions. Vous qui nous regardez, vous aviez des appréhensions. Est-ce qu'on va remplir Dakar Arena Mais on a vu même le lendemain de la Tabaski, il y avait du monde. Ça veut dire que les Sénégalais euh, ont sur la, voilà, sur la performance des Lions du football, sûrement, euh, à la Cannes. Et on espère qu'on va encore surfer sur cette euh, performance des Lions, parce que c'est une bonne performance, euh, pour aller accompagner les Lions du, du, du basket. Alors, mais, amna lo xamne dañ ko wara rectifier nak Sénégalais, supporter. maa ngi nuyu au passage monsieur Diokh bu nekk Mali parce que daf ma envoyé ci fi final bi benn message mu ne ma mais Adama il faut dire aux Sénégalais de supporter on il faut qu'on sente les supporters que mais ñun parfois dina am moment yoo xam ne euh, dañuy nekk plus de des, des spectateurs dañuy seetaan voilà dañuy seetaan te am na moment moo xam ci final bi dañu soxla woon ñëpp a jóg imaginer que c'est mille personnes jóg. ñoom ñëpp nekk euh, voilà en am def ambiance bu mettre le le Dakar Arena comme en fer pour équipe adverse bi kon bu boobaa mun na demee neneen non il faut que ñu jàng loolu équipe bu nekkee ci ay jafe-jafe ci lay ci a sentir supporter je pense que loolu aussi c' était. Ah, Adama loolu moom dinaa si ñëw tuuti man je suis parce que ñun sentir nañu. public bi parce que boo seetee contre Mozambique. non mun naa ne c' est grâce bi moo tax ñu gagné mais bi peut être yow sentir parce que yaa ngi yoon ci beneen. kii waaw man moom moom. loolu sentir mais t' assure que am na benn moment. dañu doon croiser les bras di seetaan. ndeysaan voilà peut-être aussi dañu tiitoon. alors que il fallait que ñu pousse tuuti dañoo xawoon a tiit parce que xam nga la moo tax. Ah. Euh, nit yu bëri dañoo yaakaar ne Nigéria dañoo doon 20 points. fu mu doon jaar ak yeneen xëy na tiitaay boobu moo leen ah, jàppale mais sinon man moom je dis chapeau. à à fu ñu fu ñu tegoon Nigéria la. waaw nañ aussi souvent dañu sous-estimer équipe Sénégal bi Euh, di di di di surestimer les autres alors que on a quand même en mhm. football en basket ou ailleurs on a de voilà de la valeur sûre alors euh, donc pour ce qui est de la de la relève il faut qu'on permette à l'entraîneur de faire de la prospection xool xale nga xamante ne ñoom ñoo mën a ñëw ndànk-ndànk progressivement am na ñoo xam ne il faut ñu continuer ah parce que wax naa ko sànq tournoi pré olympique baa ngi ñëw il faut que ñu xool tout ça c'est je pense que l'entraîneur est mieux outillé il connaît bien bien il connaît déjà ses mhm. il connaît mhm. comment faire il faut mhm. qu'on lui permette faut que l'État et la fédération mettent Cheikh Sarr dans les conditions de dérouler Euh, Amdi di Fall plutôt pas Amdi Fall mais Amdi Fall voilà damay confondre borom Bentali moom moo ñu gunge woon ci ci ci accueil Astou bi fale mais may remercier au passage la capitaine encore une pour sa disponibilité et puis euh, sans oublier Ibrahima et Maïmouna voilà euh, frère Ibrahima ak sœur am Maïmouna aussi vraiment qui sont temps avec elle merci en tout cas chers amis téléspectateurs de rester fidèles au programme de 2STV on vous donne rendez-vous inchallah va la Coupe du monde de basket en Chine Comme d'habitude, voilà, on va dire les coulisses, voilà, les découvertes, ce sera sur 2STV, bien sûr. Merci, bonsoir, bonne suite des programmes.